ah ak uh, Olinda. Olinda waaw. man yow laa tii baax la. xanaa doo ko ñam. la ilaha illallah ma naanul Olinda. ah du ma dox. <laughs> laahi bool man damaa seekare bi ci ne. yow da ngaa ñëw fekk la may lekk. Ah. yow nga bëggal ko sa bopp. <laughs> leer na ma nag maa gis lekk. loolu mu dudd yëpp sama yëf la. laahi xoolal leer na ma Ama Jogo may Ama Jogo Ama Jogo ndeysaan Wah bagage ñëw na ak kay waaw Wah waaw waaw am solo am solo waaw waaw boo ñëwee boo fekkul tamit di ding ding di nga sama booy bi Wah oke. nga jox ma ben benn poto armantine mayonnaise bu mag waaw Moustapha jox ben foofu benn benn armantine mayonnaise waaw bu mag cey mantin armantine na ngoog armantine nah, maa la ko wax bota bi bota Argentine meen ba jox ko bota Argentine bi uh, mayonnaise bi dangaa war a bu mag bii bu mag bii dinaa ko jënd ndimbali jaboot ak bii ma bi ko ma xam ko <laughs> ah, moom mii neex la def ci loobule uh, Olinda Moussa ah. jox ko Olinda bi waaw kay ah te Moustapha taxawal xaaral xaaral ko ah dana sekanda nane nakusani Sénégal mia sekanda nane banjulo ku jadi te kapiti nati Marseille Marseille Albert Moussante la sawava raya banga habda is Ramadan again and GRTS brings you Q&A. You have any questions for this is month of Ramadan. Send your questions to 2020 300 6060-600 and 999-0909 and get your questions answered by Islamic scholars in English, Wolof, Mandinka, Jola and Fula. Just text and get your questions answered. GRTS Trace wishes a blessed holy month of Ramadan. sunkaruwato sita wakamma kiw selye sabisol natale na mentola kiw ramadan anin kiw prayer ñing sabisol ke kala mutandi wato i na inyanta salila wato men na inyanta sungo datila andu wato men na inyanta la ni lafta lon na wato men na inyanta sumo datila ani wato men na inyanta tela ibe men kela doro wala mu kana madan safi kaki 707 na tarata ilafta lon na wato men na inyanta sumo datila andu wato men na inyanta tela ibe men kela wala mu kana madan safi kaki 727 niye prayer safe kaki 707 ibalun na wato men na inyanta salila bari ni ta pul karo mume puka kala mutandiro soto ka bonan sel nin sali wato sita be men do doron wole muka preya safe kaki 717 sel be duwa lalye sun karo ki sel sun boss the gambia's quality network نبي mbokk yi gannaaw bu ñu sant yàlla julli sant bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw fii nag si turi Mouhamad Dia nga wala wala moy ñi compagnie bi ñu ñëw fekk si fi imam ak mbolo islam mi indi fi téeméeri mbuusi ndogu ak ay satala yu ñu war a jàppee pour ñu len ko si commencement weeru koor bi ñu sakku seen ñaan pour compagnie bi lum semba ah, yàlla sottal ko rombe allahu taala tentula mario man satalla men yalon ko ayen futan ja ya ko man ayen futan ni sunkaro kam futan di sunkaro la nyinan sunkaro sungo nyinna ka sunka mako e ngam mabe sunkaro la be mario man satalla tentula wala folo wala tin nambe kiusal tentula o kan san wo san comme kaya fo ñamen i ka futan male kan nafa mba fala mu compagnie kayro compagnie le mati kayro compagnie lem kiwsel ti woto mo sa fono kiwsel abe kayra compagnie le kono ni be ni ba konte la woto mbi allah taala ten dula serun diyam re jenne nga kayra ku jamale fo kiwsel ye menke gambia ye na fo janne serum adun ta fo adun ka bo serun kana fo ñinan koma ya fo nyame facilities jamal bije kiusel ka menke gambia ye dandula tala ibaka ne do me fonyo kiusel la nafa ni ko ba fola ita bannola ita dannola ita kontinola fana mbe duwala fana kiusel ye fallahu taala sa sambañato ala sa yirwa ala sa nemo alasa ala sa barko siya ala sa duwa jabo asike nafati gambia be kiusal ma addani on o service ko andintina on waktuji ɗin fi sullagol huntagol e juulugol nelde ramadan e number 707 kiwsal andintinayi on waktuji ɗin fi sullagol e huntagol fi ñalande nden nelde ramadan e 727 kiwsal andintinayi on waktuji ɗin fi sullagol e huntagol fi lewru ndun fow nelde prayer e nambe 707 kiwsel andintinay on waktuji ɗin fi juulugol e nder ñalande nelde prayer e nambe 717 kiwsel andintinay on waktuji ɗin fi juulugol fi lewru ndun fow kiwsel no ñaganade on lewru jam moƴƴere kiwsel suñu bos The Gambia's Quality Network. brings you Q&A. You have any questions for this is